am contentement bu rëy parce que xewle nit ñi wuyu si la nekkul lu yomb donc damay sant yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla parce que tey boo leen gisee li ñu def nii dafa nekk benn journée set setal bi ñu defar parce que dañoo ne euh, un corps un esprit sain dans un corps sain li tubaab naan xel mu sell si yaram gu sell mais ñu ne dañ ñaan si environnement tamit pour que lool mu loolu yëpp mën a nekk il faut mu nekk environnement bu sell donc loolu moo tax tey sant yàlla ba ñëpp ñooy wuy suñu ñu def benn set setal di ko jeexale ak benn yendu du lu dul ñu toog nit ñi féexal seen xol ñu bañ a à chaque fois que bu ñu leen soxlaa rek ñu yel leen di leen yàpp si kaar yi li ma bëgg mooy nit ñu toog féexal seen xol ñu añ ba suur naan suñu ataaye ba pare di waxtaanee problème yëmbal man c'est ce que je j'ai voulu faire ce matin di sant aussi ñoom El Hadj di sant ñu mu àndal ñëpp parce que vraiment c'est quelque chose qui me va droit au cœur parce que kilifa bu fi ñëw tamit yabal nga et je pense que loolu dafa nekk li nga xam ne ne war nañ ko santaate wax ne le combat de bi buñ si yàlla yobe si jàmm dégg nga ni changé tendance bi incha allah rabi waaw bëgg jëb bëgg bëgg jibi jaw ak ñi mu àndal muy coalition APR beeg muy coalition ñi nga xam ne ne mouvement yeneen mouvement yi du dara lu dul ñu xoore nan la ñuy def changer image yu yëmbal parce que li ñu bëgg tey mooy yëmbal ñu koy dégg si yeneen anam di ko bañ a dégg tout le temps si fait divers yi je pense que tey aujourd'hui buñ toogee tey di wax ne waxu yëmbal du sama personne moo intéressé yu waa yëmbal seen action yi ñu posé parce que comme maire bi fi nekk bi yàlla dafa dogal ne il arrive pas à faire li ne moom lañ ko dénk ñun dañuy ñaan yàlla li lay war a sóoli nañu àll tuuti mairie bi ñun ñu wan lañ leen leen mënal ak lan la ñu war a mën a indi euh, benn plus value c'est-à-dire valeur ajoutée pour situation yëmbal pour que xale yi mën a am si luñ jàpp pour mën a am liggéey pour que ñu formation yi nga xam ne moom lañu initié yi nit ñi am si jàpp mu nekk formation diplômante jàng baax na parce que da jox dalay former mais voyager neex na da lay permettre nga découvrir autre chose mais formation diplômante moo lay permettre nga am si loo jàpp mën a nekk sa mën a créer sa sa entreprise bopp donc loolu daal moo nekkoon sunu sunu wax yu tuuti di leen sant di waaw programme yi nag comme ñu ngi waaj a dugg si koor dañuy ñaan yàlla ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin mais si weeru koor bi tamit dinañ def aussi ay conférences religieuses yi nga xam ne ne pour di waxtaanee wax yonent wax diine ji kooku je pense que am na solo bu loolu demee ba jeex incha allahu rabbi <coughs> dinañ def suñu rentrée politique ànd koog mbokk yi responsable politique yi nekk yëmbal yëpp ministre yi délégué responsable politique yi dinañ ñëw parce que foog ñoo xam ne yëmbal benn kàddu la léegi yëmbal du ay ñaar wala ñett <coughs> nit ku nekk mun nga am sa benn conviction mais comme yëmbal moo ñu intéressé loolu incha allah dañ ko def te comme weeru koor bi incha allah am na 300 formations diplômantes yi ñu maye woon dinañ ko commencé nit ñi am si luñ jàpp au moins comme président mu ngi doon wax ne da bëgg jàppale jeunes yi <coughs> si problème formation ñun commencé woon nañ ko si parce que nit ku nekk war nga xool fan nga war a mën a commencé pour dimbali si askan donc si tànk yooyu lañ nekk te di leen ñaan ngeen ñaanal ñu lépp sotti si jàmm incha allahu rabi